Euh, nañu may Tange mu dugg mu wax ci actualité mooy suñu première actualité di conseil constitutionnel Tange Tandian. waaw Zeyna ñu ngi lay ziar di la nuyu. di delloo ziar ñu ngi lay bëggee bu baax a baax. sant bu wér alhamdulilah naka foofu yéen a ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm bu baax. waaw. ça va seen disposition ça va alhamdulilah. Euh, actualité bi yaakaar naa ni raw la doon tey nekkoo fi mais yaa ngi koy suivre mooy décision conseil constitutionnel bi ñu jël. Mm-hmm. di kase décision bi nga xamante ne jëloon nañ ko yóbbu élection yi ba décembre deux mille euh, vingt quatre mm-hmm. ñu gisaat ni lépp changé waat na léegi fu ñu toll ni sénégalais yi xamuñu ban date la élection yi di am mm-hmm. noo gisee actualité boobu monsieur Tandian waa Zeyna tout d'abord permets-moi euh, di nuyu képp koo xamante ni

te yàlla moo ko moom. Mhm. te mbirum suñu yàlla bu ci xaar jërëjëfu doomu aadama. yàlla mooy jël ko dëgg jooju wisaal ko ci àdduna. Mhm. te luñ ci soxla maanaam mooy a le peuple sénégalais. Mhm. ñun dañ jàppoon dañuy éveiller le peuple sénégalais mais ñu ngi éveiller sax le peuple malien. ñu malgré dégguñu nous ñuy wax mais parfois les force suñu mot en français mm. parfois sénégalais yu nekk foofu di leen ko traduire parce que nous, n'avons ngi nekk Mali mais je peux dire que c'est l'Afrique qui se retrouve au Mali mm-hmm. parce que nous, ngi feeg waa Niger nous ngi feeg Tchad nous ngi feeg Guinée nous ngi feeg Côte d'Ivoire nous mm-hmm. ngi feeg Burkina Faso ñi ngi feeg euh, presque c'est l'Afrique mm-hmm. Mais mais une situation bi am Sénégal je crois que comme on dit rek il faut que sénégalais y aient où lu may wax le sénégalais aient où quand je dis les Sénégalais là, mon le peuple souverain. Mhm. le peuple souverain am le peuple hypocrite le peuple opportuniste. Mhm. mais le peuple souverain là, waxal nous ñi nga Sénégal nous leen ñor. Mhm. ñi nga Il la partie jaune rouge étoile bi ci ñoo de bay parti yi nga xamanteni ni dañoo am couleur te nekk des opportunistes euh, Zeyna je crois que tey sénégalais bu yeewu ci situation politique bi mhm. dootoo yeewu mhm. parce que tey suñu gisee les médias français li ñu jëlee seen bët teg ko ci Sénégal rek les sénégalais devaient se poser la question pourquoi France am autant d' intérêt ci kaw Sénégal bu bëgg waxee nii parce que je crois qu'il y a des problèmes plus sérieux en France aujourd'hui. Nous avec régler Quand je vois l'ambassade des États-Unis mettre son sel, tu l'as dit, décision Conseil constitutionnel, alors que c'est l'ex-président du Donald Trump, nous condamné pour fraude. Je mhm. parle interdire l'activité pendant trois ans qui est à New York.

le président Macky Sall. Mhm. dañ ko dénk Sénégal. avalement Ibrahima Diguène Makhali Mor Tojange. tax mu jàng lu bëri xam lu bëri ci Sénégal parce que dafa am lu bëri loo xamante ni xamuñu ko woon Sénégal. Mhm. dafa am lu bëri loo xamante ni amul woon Sénégal. Mhm. benn jour maa ngi dégg suñu Mbacke Ndiaye di ko wax. mu ne ci plateau je crois jàkkaarloo la si doon TFM. mu ne ñi am Sénégal ren musu fi am. ci reporté élection roog ci ay euh, décision yi ba Macky Sall jël décret convoqué collège électoral pour ñu dem assemblée nationale mais na sénégalais aussi témoigner journalistes yi témoigner que li xew ci politique gu Sénégal mosu fi am Ibra Deguène Makhaly nu mu duggee ci politique mosu fi am politique gu saaga ndey mosu fi am politique gu xaste mosu fi am politique gu dem taal ay kër responsable politique mosu fi am mhm. politique gu toog di jël ay kilifa diine di saaga seen ndey guddeeg bëccëg mosu am Mm-hmm. politique gu jël journaliste gu toll ni Pape Alé Niang jàkkaarloog ñu toog ñëpp di ko seetaan mu ne bépp kilifa diine bu leen wax bu leen ko déglu wàcc leen ndigalam mosu fi am. Mm-hmm. et pourtant le peuple sénégalais ñi ngi noppi ci loolu yëpp gis ni ko loolu yëpp yëpp féeg la yëpp naafiqisme la ñu jël seen bët teg ko ci benn décret bu Macky Sall jël élection yu ñu pousse lan mooy élection tey suba dem wote ji ñu tànn benn nit pour mu Sénégal. kan moo war a diriger Sénégal est-ce que Sénégal tey dañ ko war a bàyyi ci ay loxoy amateur Macky Sall est-ce que Ablaye Wade dafa sax saaxale dëkk bi ba ñëw teg ko ci loxo yoo xamante ni baaxul pour mu jëw bés bu Macky Sall bàyyee Sénégal nii ba Sénégal yàqu Macky Sall ba keroog yowmal xiyaam da koy layoog suñu borom donc il a une lourde responsabilité de veiller sur la sécurité des Sénégalais autant qu'il est président et autant qu'il va laisser le pouvoir pour jox ko successeur am. Conte mm-hmm. je crois que moom il a agi si pouvoir li ko yoon may. Oui, article 42 nous qu'on garanti le bon fonctionnement de nos institutions Nous dem ba ay élection mhm. conseil constitutionnel conseil constitutionnel Macky Sall le décret sénégalais jox vous mhm. Macky Sall le décret que ko avez sénégalais je vous sañ nit nag mënoo ko may sañ-sañ ba pare mu jëfandikoo sañ-sañ bi nga ne ko danga fi yore sañ-sañ bi ma jox il faut que yi xam li ñu bëgg ñu génn ci seen naafeqisme bi seen hypocrisme ak seen fen bu bëri bi mhm. fen nañu fen a fen fen ba kenn xàmmeetul benn sénégalais mhm. kon tey Macky li mu jël yëpp daf ko jaar na ci yoon dafa jógee foofu dénkaat ko ay député député bu nekk assemblée nationale le peuple sénégalais ñoo la fa fal amul benn député bu yóbbu peuple boobu nag jël seen cadre dénk ko Zeyna assemblée nationale ñom ñoo voté lolu yóbbu ko ba le vingt décembre. Mhm. pourquoi ñu yóbbu ko ba le vingt décembre parce que am ay problème yu am ci biir élection yi té problème yoyu am opposition bi ci bopam ñom ñoo jóg taxaw signaler ko Macky Sall Macky Sall mosul signaler problème. Mhm. opposition boobu taxaw tay né dañuy def marche. Mhm. nag sénégalais xam nañ que kenn kenn ñu kenn par kenn ñi ngi dem di négocier ji di gisi Macky Sall. ma jox la benn exemple am na benn candidat bu xees. moo gën a rëy làmmiñ moo dàq wax bu xees moo gën a rëy làmmiñ dàq wax na weddi ni que ndax amul benn homme d'affaires bu turam commencé e santam commencé L téyewul loxoom ba yóbbu ko kër Macky Sall mu toog wax ko soxlaam te pourtant du ko wax ay militant ah bon te pourtant nee na du dem dialogue te ma nekk woon ci candidat yi xees pecc rëy làmmiñ bare wax di fen suba ngoon guddeeg bëccëg li muy wax gëmu ci dara mu génn ne bu kenn dem dialogue nee bu kenn dem dialogue te moom guddi sol na àddaalam dem dialogue yi léegi Macky Sall war war na ay militant war na opposition bi war na askan bi benn mhm. kon yaakaar naa ni président su jëlee décision ba ñu repousser élection yi assemblée nationale voté ko ba le vingt cinq décembre je crois que vingt cinq février vingt cinq décembre c' est la même chose mhm. Macky lu mu deful woon ci juróomi at yi ci ginnaaw mënu ko def ci juróom-ñeenti weer yi mhm. am na nag luy ñëw Sénégal ci mois de juin bii lay commencé. Hmm. muy suñu suñu ressource naturelle ñu doon xaar. Hmm. muy premier barigo pétrole yi. Hmm. bato yi egsi na ñu ngi port juin bii la war a génn te boobu su génnee lu mu dee dee cent milliards dina sotteeku par jour biir Sénégal. macha allah. cent milliards yooyu la ñi nga xamante ne ñoom ñoo yàkkamti mel ni ay dëmm ay jën. foog ni que ñoom dañu war a dem defari seen àdduna ci alal boobu moo tax ñu yàkkamti dem élection foog ni suñu gagné dañuy tong tonge Sénégal mais ce sont tous des hypocrites ce sont tous des naafeq ce sont tous des opportunistes bu leen sénégalais yi toppee ba may leen benn opportunité je crois que ñooñu mooy ñu alku ndaxte yàlla su la wàccee ci suuf dafa am lu mu lay woon ku dëkk géejawaay rek ku dëkk géejawaay rek loolu doy na la misaal ni koy Youssou Ndour waxee tànn mën naa bañ a sore ndaxte ku nekk sa doy na la misaal sa bopp doy na la misaal ku xool tey mairie Géejawaay Ahmed Aïdara bañ fa teg Ahmed Aïdara bañ fa teg. Mhm. ñoom ñu doon xeex ci législative ba teg ko fa tey ñoom ñoo gën a sonn ci àdduna ñoo dàq jooy. Mhm. ndaxte maire boo xamante ne am na yenn problème yoo xamante ne sax da ngay dem di ko wayaani ji kooku lan la a Géejawaay Sénégal nag tey suñu jékki-jékkee génnee benn Bassirou Diomaye Faye man damay am gàcce parfois. su ma gisee ñu toppoon ci ginnaaw Ousmane Sonko di teg photo Ousmane Sonko di teg lépp ne Ousmane mooy suñu yaakaar mooy suñu lépp mooy suñu lépp tey ma gis Jomaay président ñoom ñëpp dama leen di gis ci beneen fond fond boo xamante ni Jomaay Faye moo fa nekk te Jomaay ba keroog ba ñuy joxe prise de partage xelam nekkul sax ci nekk président di Sénégal ay nit taxaw ne kii moo leen war a jiite ban ñàkk jom ban ñàkk humilité kon donc problème yooyu su dajaloo ñu jël décret boobu. ñoom ñi gis ni ko aussi député yi yu ko yóbbu conseil constitutionnel. Mhm. ñoom dañu topp yoon. parce que yoon moo leen may suñu d'accord ñu yóbbu ko conseil constitutionnel kon député yi ko voté yoon moo leen may suñu gisee ni d'accord nañ ñu ko kon ñoom li ñuy wax ak la def bokkul. Mhm. ba demee conseil constitutionnel conseil dafa jëlaat ndogal bi delloowaat ko Macky Sall. Mhm. ñu bëri dañu naan dafa casser décret. conseil constitutionnel casserwul de. xam nga soo casé décret da ngay naan décret bii ngeen jël pour yóbbu élection yi le vingt cinq décembre casé naa ko mënul nekk élection yi dañ koy tëgg le vingt cinq février bu mu nekkoon xam nga loolu la ñu waroon wax. ci yoon. mais wala lan la ñu wax casé nañu décret bi delloowaat nañu kàddu bi ki nga xamante ni moom moom kàddu bi muy le président de la république Macky Sall mu jël date dans les plus brefs délais Macky mooy jël dogal. Macky su ko neexee mu jël élection yi deux mille vingt sept. Macky su ko neexee mu jël élection yi deux mille vingt huit Macky su ko neexee mu jël élection yi deux mille vingt neuf ñu def ko foofu. moom mooy xool ban moment la gis ni que élection yi baax na pour ñu dem moo tax gis nga conseil constitutionnel bi. Mhm. Sénégalais yi dañu war a taxaw di teey di xool. ndaxte conseil constitutionnel décret bi bi leen fal. Mhm. décret bi Macky Sall jël ba fal leen Macky Sall boobu la jël ba convoqué collège électoral kon conseil constitutionnel su nee day casser décret président Macky te Macky mën jël beneen décret boo xamante ni da leen fay jëlee ñoom ñëpp ndaxte du diplôme du concours moo

conseil constitutionnel ñu ngi leen soxla su élection amee wala ñuy voté benn loi tout simplement. c'est bien magistrat retraité liggéey nañu ba seen béy weesu muus retraité nañu ba pare. kon tey je crois conseil dafa bëgg ne opposition bi dem leen ngeen toog ngeen dialogue ngeen Macky Sall ngeen toog xool na ngeen di organiser élection bi. Hmm. conseil constitutionnel foofu la leen foofu la leen delloo. parce que tey su ñu bëggee ñu jël date. Macky Sall mënul xëy xëy jël date parce que ñoom ñooy acteurs yi foog ñu ñëw toog xool yan problème la ñu gisoon seen parrainage xool yan problème la conseil constitutionnel amoon ñan ñoo corrompre ñan ñoo corromprul ak ñii ñu validé ci ñu am double nationalité foog mu leer Khalifa Sall foog mu leer ndax dafa am double nationalité wala amul double nationalité Anta Babacar Ngom foog mu leer professeur Daouda Ndiaye foog mu leer mhm. Malick Gakou foog mu leer mhm. Mamadou Aliou Dia foog mu leer est-ce que vous comprenez Nous, nous avons une élection. On ne peut pas avoir une élection pour avoir des représentants au Sénégal qui ont une double nationalité. Nous avons un conflit d'intérêts entre nationalité sénégalaise et la nationalité du Qui dit Cheikh Tidjane nan leeral ndax am na nationalité suisse wala amul nationalité suisse lu tax Cheikh Tidiane Dièye Bassirou Diomaye Faye ne tey candidat la moom mu ne day retiré candidature am donc Amadou Ba li mu déposé woon recours xamal ne ne que kii di Cheikh Tidiane Dièye dafa bokk ci parti bi ñu gisul muy Pastef daf koy confirmé kon donc Cheikh Tidiane Dièye warul dem élection Bassirou Diomaye Faye warul dem élection. Mhm. tey Bassirou Diomaye Faye boobu nee nañu ndox boobu sant Mbodj. mooy comédien enseignant yi ki gën a dof gën a ñàkk fayda récépissé bu ñàkk fayda moom la jël jox ko Bassirou Diomaye Faye te moom bu demoon jëli fiche de parrainage en même temps que Bassirou Diomaye Faye muy jëli fiche kon moom léegi lu tax mu jël récépissé am jëlee ko fiche Bassirou Diomaye Faye jël euh, fiche ba pare moom mu jël récépissé am jox ko Bassirou Diomaye Faye mu yóbbu ko conseil constitutionnel ban Sénégal la ñu nekk dañuy war a foye wala waruñuy foye li ma ci xam mooy décision bi conseil constitutionnel jël dafa tegu ci chartam mais charte bi daf ko delloowaat kilifam kilifam mooy président de la république Macky Sall. Macky Sall moo jëloon décret yóbbu ko assemblée nationale. Mhm. député yi voté ko. moom mu ñëw ne dafa kàtte loolu ba pare mu delloowaat ko kële. Mhm. léegi moom mi ko delloo Macky Sall day naa jëlaat naa beneen décret yóbbu naa ko assemblée nationale. Mhm. ni ñu ko jàppee noonu ba deux mille vingt neuf ñu xool ndax Macky Sall beneen mandat de cinq ans. il faut que benn message mooy le peuple sénégalais. gis nga ñii di leen di woo ay manifester manifester. amul kenn ci ñoom koo xamante ni suñ la jàppee yóbbu la ci bureau yi lañ lay teg vingt deux heures ñu escorte ka nga ñibbi sa kër yow mi bokkul ci ñoom dañ lay teg ci kaso ba nga fay bëgg a dee seen doom du naan lacrymogène su ñuy génn ñoom kese ñooy génn du génn seen jabar mm-hmm. seen doom ñu ngi ci climatiseur mm-hmm. di jouer ay playstation di seetaan football ay milan di leen servir lu neex yow nag ñi amul jom amul fulla fan lay liggéeyul nga ne da ngay génn da ngay xeex pour ñu libérer la il faut qu'on arrête gis nga ñi di wu yëpp Mm-hmm. dafa am lu ci nekk tay ñan nga dégg ñoo lekk li e yan tur nga dégg Alioune Tine ak kan Pierre Goudiaby Atepa mm-hmm. ba ma fiy taxaw di naan ñi lekk ci xaalisu terroriste bi mm-hmm. ba ma ne ba ñuy wax waxi euh, ger lan laa leen wax néew ma leen ki dëkk ci corniche bi xaw ma cadre la xaw ma du cadre waxuma ko fi woon waxoon nga ko kay Alioune Tine ñaata yoon laa leen ne c'est un opposant a est un partisan de Ousmane Sonko waxoon nga ko kon ñooñu tey ban intérêt la am parce que xaalis bi ñu lekk muy vingt millions de dollars yi jógee Qatar naar yi dañu leen teg choc da ngeen ñuy fay suñu xaalis wala ngeen wax ñu lu leer pour ñu am lu leer loolu nag ñoom dañuy xool naka la ñuy négocier pour que seen waa jooju Ibra Degen ma xaal yi xool nu muy génnee ñu am lu ñu leen promettre Sénégal ñii ngeen bëgg a dénk réew mi dañoo jaay Sénégal lekk avance bi dugal seen poche fay ci seen ay nit fay ci seen ay télévision yor ci seen ay journaliste ñi leen di fenal suba ngoon guddeeg bëccëg pour taal réew mi ndaxte ñaara am su soit dañuy fay bor bi wala ñu taal réew mi réew mi jaxasoo ñun ñëpp ñu perte bu ko benn sénégalais nangu man je vous dis la vérité am leen seen fulla am leen seen fayda opposition bu fi nekk ñoom ñëpp ay naafeq lañu Khalifa Sall tey su taxawee di critiquer dialogue dialogue moo tax tey mu dugg ba nekk candidat ba mu am sañ-sañu wax Khalifa Sall tey su waxee ñi dem dialogue dañuy dil nañu bàyyi seen fowukaay yi ndaxte Khalifa bi muy dem Sénégal bi muy dem si dialogue ñoom ñoo ko ne dañ doon dil y' a pas de deal y' a pas autre chose président Macky Sall nag dañ ko fal ñu jàpp Ousmane Sonko mu def fi ay tojaange yu dul jeex atte guñu ko jugé guñu ko moom Bassirou Diomaye Faye mhm. bés buñ fi créé loi d'amnistie laa wax loi d'amnistie mhm. bi soxal Ousmane Sonko bi soxal Bassirou Diomaye Faye na jàpp ni que trahir na toute une nation pendant des années te Macky Sall loolu du ko jig parce que dafa am ñeen fukki nit yu dé 40 mhm. personnes yoyu dé ci coobare Ousmane Sonko la ñu deewee 40 personnes yoyu dé dañu am papa am yaay am njaboot am lepp ci àdduna bi. Ousmane Sonko gënul seen ndey Bassirou Diomaye Faye gënul sen lay kon il faut que justice soit faite pour ces 40 morts uniquement pour ça waxuma sax borom alal ñaax ko yi mhm. mais 40 personnes ont perdu la vie. Mhm. ñu teg ko ci ndoddu Ousmane Sonko bari ki démb ñetti nit ñu dee ñi ngi ko teg ci ndoddu salop ñooñu ngeen baal ma naroon naa sax saaga. Mhm. mooy xaw ma ay aar suñu élection xaw ma aar seen bopp. Mhm. ay fumiste ay seytaane ñu tekkiwul ñaari salaamaaleykum bëgg a wuti ji weccet fexe ba ñetti nit deewaat ci dagam ñoom ci deretu doomu aadama yi la ñuy dundee. pour ñu mën a dund am xaalis ñu jox leen ay xaalis ay ONG ak ay USAID pour ñu financer leen seen manifestation foog ay bakkan keroog yow man xiyaam danañu wéet ak seen bàmmeel te su boobaa dina métti trop ci ñoom képp ku bokk aar élection ngay woowee sa bopp religieux ngay woowee sa bopp société civile ngay woowee sa bopp syndicaliste xam leen ni que aduna du añ du reer te ëllëg lu mat a la keroog yow xiyaam nañ ko fàttaliku alalu aduna jarul lenn yi ñi ngi encaissé ay xaalis ci takk jabar di ci doxaan di ci jënd ay oto ngir ay nit di faatu ngir ay pëna di tàkk ngir mm-hmm. ko jar mm-hmm. Sénégal ñoo war a suñu jikko. Sénégal ñoo war a suñu bopp. le peuple souverain ñom ñoo war am benn maturité. le président de la république Macky Sall a fait quelque chose bo xamanteni ni bépp jeune buy manifester bés boo génnoon ba fekk fii ma nekk ci Bamako soo ñëwee di nga sant Macky Sall gërëm ko gërëmaati ko xam nga keroog maa ngi gis benn vidéo malien bu naan vous les sénégalais vous êtes con vous voulez brûler. Hmm. comprendre lu woon mais bi ma egsee fii laa koy soog a xam. Hmm. Zeyna est-ce que xam nga ne fii nga nekk Bamako chaque quinze minutes courant day coupé. chaque chaque quinze minutes courant day coupé chaque quinze minutes quinze minutes courant day coupé nga toogaat benn dix wala quinze minutes courant ñëw. est-ce que xam nga ni fii amul benn tali bu baax est-ce que xam nga ni tey plan d'eau bi gën a dee Dakar mooy taxi bi gën a baax fii. tu vois des kilomètres ci biir capitale sablonneuse la rang rang rang rang xonk cuur soo génnee da ngay ñëw xonk cuur.

nañu préserver suñu paix ak suñu stabilité élection saa yu mënee nekk lañ koy def candidat yi mën a dem ñoo mën a dem ndaxte ñu nekk ci candidat yi yëpp kenn wóolu ñu ci ndax sénégalais nga à cent pour cent dafa am ñoo am double nationalité ñi amoon problème bu foog ñu wax seen kan moo ko kale kan moo ko kalewul mhm. waa PDS ñu ne woon dañu am supposé corruption ci a ñaari juge yooyu juge yooyu ba tey démissionné guñu mm-hmm. Sénégal fi la nga yor da nga ba mm-hmm. problème bi sénégalais bu nax nga dañu nekk ci politiciens yi les candidats les candidats recalés les candidats définitifs alors nañ ci waxam door nañ ko contrôle judiciaire parlementaire ñu xëyaat suba gis benn vague de libération ay bandi taalkat la ñu génnewaat wala Macky Sall daa bëgg bandi yi génn taal dëkk bi gars yi woote manifestation dëkk bi su jaxasoo léegi mun leen léegi crise moo am Sénégal kenn mënatul def élection loolu laa fi gis jàpp ay nit tëj leen pendant neuf mois nga ji ñu leen nangam jugé wuloo leen nga xëy leen nga leen defu leen dara génn leen mais à quoi ça servait nga téye leen teg leen ci kaso bi ñaanul ma yàlla kenn nekk ci kaso bi mais ñoom ñi leen téye woon ba dugal leen foofu waroon nañu ne askanu Sénégal lii moo taxoon ñu téye leen lii moo tax ñu bàyyi leen mais tey amul benn sénégalais bi xamul lu tax ñu téye leen benn sénégalais xamul tax ñu bàyyi leen. d'accord ban dëkk la ñu nekk. Mhm. il faut que ça soit clair Zeyna. d'accord merci. waaw baax na da nga am benn question wala ma dem. <laughs> non dama lay bàyyi nga noppalu li ci des Abdou Nguer eggali ko. waaw kàcce boog ca kanam. ok merci nee naa leen partout à travers le monde fu ngeen ma ma ñëw. gars yi ñu ngi may réclamer nag. nee nañ rek ma ñëw ah, yow kay dawal ñibbisi.